Papa Brise waa Yoff la ñu ngi koy bégee la demee waa Medina TV ñëpp ngi fi xam nga lii tey si tey ba El Diaz El Diaz champion la El Diaz da nga lay félicité booy noonu la demee El Diaz eh tàccu leen El Diaz gaan parce que El Diaz xoola culture bu Medina culture bu Medina waaw parce que Medina booy xoola bu dee hip hop cinquième underground moo fi doon yëngal hip hop fii si biir Medina du dëgg mais El tey si tey xoolal moo jëlaat flambeau bi kon El Diaz dañ koy félicité noonu la demee album bi macha allah alhamdulilah ñëpp kontaan nañ asikooy affaire maintenant la maintenant mooy Sénégal Oustaz ñu waajal ko incha allah stade Iba Mar Diop le 4 décembre ah la demee waaw hip hop Galsen ca kaw ca kanam el jazz ca kaw ca kanam laa mi askan wi. non non xoolal tey si tey Medina bi A ba Z 1 e ba 45 duñ fi sax nekk di lim ku lim juum kusum jàppoo Dame Sancaba Ngaraaf Baye xoolal Guy Salaan booy nga ñaacaar booy maintenant nañu xam ni xoolal am nañ champion quoi am nañ ndaanaan am nañ artiste muy el jazz tey si tey album bi dafa baax. muy si rap lyrics si technique flow lépp jaar yoon macha allah xam lu ma la wax maintenant nag nañ jàppale seen doom quoi El Jazz noonu la demee ñu suqali xoola hip hop Galsen fii si biir Medina le 4 décembre ñu defaat gisa fermé incha allah stade Iba Mar Diop comme ni mu ko defee woon si grand théâtre bi noonu la demee maintenant si kaw sa kanam ndam toos.